mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya juróom-ñaar fukk ak ñett ci suratu nahl muy aaya 73 ci suratu nahl wa yacbuduuna min duni illahi ma la yamliku lahum rizqan min alsamawati wal ardi shay'a aaya juróom-ñaar fukk ak ñett ci suratu nahl in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم سبحانه وتعالى مني يفري يدي wa yacbuduuna min duunillah ña ngay jaamu gannaaw yàlla maa laa yamliku lahum rizqan min alsamawati wal ardi shay'a loo xam ne moomul ñeel leen wërsëg du luy jóge ci asamaan wala luy jóge ci suuf ci dara lu mën a doon wala yastatiicuun ci amuñu kàttan sax ci loolu fala tadribu lillahi al amsal ngalla waay bu leen dóoral yàlla ay misaal ay nawle inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun ndax yàlla mooy ki xam yéen xamuleen daraba allahu masalan abdan mamluka yàllaa ngi dóor misaal jaam boo xam ne dañ koo moom laa yaqdiru ala shay'in ca amul kattan ci dara wa man razaqnaahu minna rizqan xasana ak koo xam ne dañ ko wërsëgal wërsëg woo xam ne wu rafet la fa huwa yunfiqu minhu muy nekk di dépense ci wërsëg woowu sirran wa jahra ci loo xam ne lu nëbbu la ak loo xam ne lu feeñ la hal yastawi hal yastawuun ama ndax ñaar ñooñu yem nañu alhamdulillah mboole mi cant ñeel na yàlla bal aksaruhum la yaclamuun la fa nekk kay mooy la ëpp ci ñoom xamuñu wa daraba allahu masala rajulayni yàllaa ngi dóoraatit misaal ci ñaari góor a ngi ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala cheyin kii daa doon koo xam ne kullu la mooy munta wax ca amul kàttan ci dara wa huwa kallun ala mawlaahu ba pare nekk di aji coono wékku ca boroomam ba ko moom aynama yuwajjihu laa yaati bi xayr fu mu ko mën a jubal it du ko indil ci benn yiw hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl ndax kii dana yemoo ka nga xam ne day digle ak maandute wa huwa ala siraatin mustaqim te moom mi ngi nekk ci yoon boo xam ne yoon bu jub la mi ngi noonu mbokk ñi ngi nekk ci sunu saaru mag wi di saaru xéewal gi di suuratu naxl borom bi di ci wax ay xéewalam ci waxin wu fasanti koo doonte ne ni lii lépp ba mu ñu koy defal dafa bëggoon loolu gën ñoo dooleel ba ñu jaamu ko bañ koo bokkaaleeg dara waaye teewul sunu borom nee na lu ëpp ci nit ñi ñi ngi jaamu gannaaw yàlla ñoo xam ni moomu lu ñu leen wërsëg wuy jóge kaw asamaan mbokk jullit ndax am na keneen ku mën a indi taw ku dul yàlla tontu li mooy déedéet léegi ci suuf ana kan moo mën a saxal les millions de tonnes ci ceeb ci dugub ci gerte ci ñebbe yi doomu aadama yi dunde ndax keneen mën na ko ku dul yàlla kenn mënu ko et pourtant yéeféri saxaloon nañu loolu ba pare teewul ñuy jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala borom bi nee na yoraluñu leen ko ca mënulul ca mënuñu ko mu ne nag kon bu leen dóoral yàlla ay misaal sunu borom laysa ka mislihi shay'un dara melul ne moom te it kenn melul ne moom looloo tax ba julit bi moom day gëm saar bu gàtt boobee te ëmb melokaani borom bi mooy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad mooy kenn ki amul ku ko ñaareel mooy ki nga xam ne ñépp a ko soxlaal soxlaalul kenn dara muy assamad jurul kenn kenn juru ko ca kenn melul ne moom kenn du nawleem fala tadribu lillahi l amsal sunu boroom mooy ki xam yéen nekku leen di xam dara gis nañ sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ne julit ñi ñaanuk istixaara moo di ne boo amee lu la itteel sa àdduna bul dem ci tariyaax bi jox ko dara pour mu fanaanoo la nga ñëw ëllëg mu wax la sa avenir bul dem ci borom tani bi bul dem ci borom géndal bu dee sun jamonoy tey bul téléphoné benn rajo rajo communautaire yi nekk Dakar yépp am na seytaane bu fa boof góor la wala jigéen ku ne ko allo mu ne la waaw sëñ bi li taxaw ci say mbir mooy kaza wa kaza wa kaza ngalawaay loolu bu mu la ci fekk loolu shirk la jëhlu la ba ko lislaam terewul woon sax xel mu rafet nanguwu ko yonent bi alayhi salaam lañ doon sant jullil ñaari rakka nga daal di ne yàlla maa ngi lay tànnloo ci sa xam-xam bi di la dogalloo ci sa kàttan gi di la ñaan ci say ngëneel ndax yow yaa xam man xaw ma di ñaan ga noonu la demee fa innaka taalam wala aalam yow rek yaay xam man xaw ma te loolu mbokk amul kenn ku la mën a xamal kumpa ku dul sa borom subhanahu wa taala xatta sa yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi yàlla nee na ko wala taqulanna li cheyin inni failun zalika ghadan illa illa an yasha allah yow sa bopp bul wax mukk danaa def dara suba waxuma weer wi dee wala déwén waaye xataa suba lu dul nga ne incha allah ndax lii xew suba xamoo ci dara waaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ji mindee fi yàlla yi bu dee programme boppam la cay xew suba xamu ko kee góof ca rajo ba nu muy xamee sa programme loolu nga la waay bàyyi leen ci xel inna allaha yaalam wa antum la taalamuun léegi nag yàlla ngi door misaal soo demee ñi jàngal ingénieur yeeg yooyu bokk na lu ñuy wax un bon chemin vaut mieux qu'un long discours moo di ne nit ki boo ko joxee misaal bu rafet moo gënoon nga koy wax téeméeri wax yu dul jeex loolu tax alquran ay misaal bari ci yonent bi alayhi salaam it lu bari bu ko daan jàngale da ciy joxe misaal xatta julli gi sax taxaw na ci comme minbar bi def démonstration kon yàlla ngi leen di dóoral ñaari misaal benn misaal bi mu ne kii moom benn jaam la jaam bu jëkk mooy ni ngay moome sa xar ak sa nag noonu nga moome sa jaam soo ko reyee yoonu kenn niwu ci bu la neexee jàpp ci nab bi dem jaay yoonu kenn nekku ci sunu boroom mu ne jaam baa ngi nii benn amul benn kattan dañ koo moom moom la mu moom ndax ku mel nii dana yem ak koo xam ne yàlla da ko wërsëgal alal mu am lu bari di ca joxe lu nit ñi yëg di ca joxe lu nit ñi yëgul ndax ñaar ñi yem nañu wallahi yemuñu loolu muy misaalu diggante sa boroom ak i jaamam jaami yàlla yépp mënuluñu lenn seeni moroomu jaam mënuluñu ko sax seen bopp amma yàlla jalla wa ala mooy ki nga xam ne mooy wërsëgal jën yi nekk biir géej mooy wërsëgal la nekk suufu montagne ya mooy wërsëgal pëcc yi ca kaw garab ga mooy wërsëgal ñépp guddi ak bëccëg loolee kon sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne waxal alhamdulillah te mooy mboole mi sant ñeel na yàlla subhanahu wa taala alhamdulillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnal na foo sëlmale julli nga wax ko 33 fois gis ngeen nga wax ko fanweeri yoon ak ñett loolee boo ko xoolee daanaka day nekk lu jege cent soixante nangam fois yoo koy wax gannaaw julli te bokkul ak li nga koy wax bu julli passé wala ci biir téereb yàlla bi xatta fatiha mi ngi ubbee alhamdulillah te muy mboole mi sant kenn rek la ñeel muy yàlla subhanahu wa taala qul alhamdulillah waaye li ëpp ci doomu aadama yi dañoo xamul te loolu itamit mbokk julit da ngay xool li ëpp ci doomu aadama yi ñetta dul julit taxul ñuy wax waaye même ñiy woote wal islaam almannu lillahi wala rasuli yàlla rek am droit bàkku moo am droit puukaréwu waaye mbokk jataay bii ñu yàlla wërsëgal ñu bàyyi suñuy soxla téem téereb yàlla bi di ko jàng ndax lu mel nii dix pour cent sénégalais yi am nañ ko waaw wallahi da ngay gis na amuñu ko lu kon lan moo xew mooy jullit ñi soril nañ leen téere bi yàlla bi bu ñu leen dajalee dajale yoo xam ne ay milliards lañ cay dépensé soo jógewoon bitim réew ñëw ca dajama doo xam lu nit ñiy def dañuy wër rek di lekk ka naan wër rek di lekk ka naan pendant deux jours pendant trois jours loolee mbokk da ngay gis ne tey li gën a indi musiba gën a indi shirk bi bokkaale bi mooy lan aksaruhum la yaalamoon la yàlla bëggoon ñu xam ko muy téere bi yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñay woote woo lislaam la ëpp ci ñoom xamuñu ko kon boo bëggee génn ci ñooñu fokk jéem a la xam mbokk diine lislaam du diine zikr zikr ab parti la ca waaye lay fondement diine lislaam mooy jàngi loolu mooy njëlbeenu jéego kàddu gi jëkk a jóge ci làmmiñu jibril alayhi salaam wàcc ci nopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ban kàddu yéen ñu jàng iqra jàngil su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax benn misaal baa ngi noonu ñaareelu misaal bi sunu borom mu ne kii moom ñaari góor a ngi nii kenn ki dafa doon koo xamee ne nii ah dafa lu munul wax benn ngi noonu ñaareel bi mu paralysé amul benn kattan ba nga xamee ne ka kay taxawu moo ko yoroon léppam moo koy may mu lekk moo koy may mu naan moo koy yëkkati moo koy tëral ndax laa yaqdiru ala shay amul kàttan ci dara boo demoon hôpital léegi fekk ko fa ponkal mu ne jàng-jàng laa yaqdiru ala shay mi ngi noonu su ko defee mu ne sunu borom mu ne ndax ku mel nii dana yem ak ki nga xam ne moom yàlla da ko may muy digle lu baax ya'muru bil adl te mbokk adlu googu mooy maandute daañ ko jàng àllarba ji dañu insha allah inna allaha ya'muru bil adl lan mooy adl mooy maandu lan mooy maandu ku ne nga jox ko aqam loolu mooy maandu jox yàlla aq bam yeyoo yonent yàlla aq bam yeyoo sëriñ ba aq bam yeyoo ku nekk nga jox ko aq bam yeyoo bañ koo paase la fa ko yàlla yemele heure boo jëlee aq yàlla jox yonent yàlla maandootoo heure boo jëlee ak yonent yàlla jox keneen ku mën a doon même bu doon abubakar maandootoo kon wa ya'muru bil adl wa huwa ala siratil mustaqim te mi ngi nekk ci siratil mustaqim lan mooy siratil mustaqim mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am déet wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim yow yaay jëbale ila siratil mustaqim léegi nag mboo ko xoolal waa ji kii jàng ne diine l'islam mi ngi wër di waaraate di woo nit ñi ci yoonu yàlla ndax dana yemee kee paralysé ca kaw lal ba bu doon mën na wax sax mën a wax luy jëriñ mais paralysé na ba pare mun ta wax loolu kon mooy misaalu sunu borom ba tey ak xërëm yiñ koy bokkaaleel immaa nga yett sab xërëm di ko jaamu loolee ca yéeféer ya doonte ne boo demoon ci niti diine yi yahud chrétien ak l'islam la ëpp la ñuy bokkaale seen borom mooy ay xabru ay bàmmeel mi nga noonu dem ca bàmmeel ba di ko ñaan ak sa oto nar a këpp alopkaañ nga ne yaa cheikh diw kaza wa kaza lu tax moo di ne ne ñooñu la ñuy bokkaale ak seen borom borom bi nag mu ne kee nga xam ne ma nga tëdd mënulul boppam dara mënul wax ngeen dégg ndax da ngeen ko yeme léegi yàlla mi nga xam ne moo wàcce téeréem di woote ci yoonu njub moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala daa di ne xam leen ni ñaar yooyu bu ñuy yem yal na yàlla musal ñu ci ñu leen di yemele.
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
سنبروم سبحانه وتعالى مني walillahi xaybu samawati wal ard ñeel na yàlla lépp luy kumpa ca asamaan yi ak suuf wa ma amru saacati illa ka lamxi lbasari aw huwa aqrab la nga xam ne muy mbiru bisu pénc ba yàllay dekkal jaam yi melul ne xefug bët wala lu gën a jege xefug bët ay lu ko gën a gaaw inna allaha ala kulli cheyin qadir xam leen ne seen borom yàlla bépp mbir ku ci am kattan la wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a xam leen ne yàlla moo leen génne seen biiru yaay yi xamu leen dara wa jaala lakum alsamaa wal absaara wal afida mu def ñeen leen ak dégg def leen ñeen leen ak gis gu ngeen di gise ca may leen ay xol yu ngeen di xalaate may na leen i bët may na leen i xol yi ngeen di xalaate laallakum tashkuruun lii lépp def na ko ngiree ngeen sant alam yaraw ila ila tayri musaxaratin fi jawi sama amoon ndax nit ñi seetlu wuñu ci picc yi nga xam ne dañ leen a tàggat ci jaww asamaan bi maa yumsikuhunna illa allah kenn tey wuleen fa kudul yàlla inna fi zalika la ayatin li qawmin yuminuun nekk na ci lii lépp day ay kawtéef ñeel xeet yoo xam ne dañuy gëm mi ngi noonu mbokk sunu borom mu ni mooy ki xam kumpa di nekk ci biir asamaan yi mooy ki xam kumpa bi nekk ci biir suuf te it nee na kumpa googu du ko xamal lu dul ay yonentam la nga xame ne moo ko ca neex su ko defee ngalawaay yonent bi alayhi salaam daana wax ne man ata arrafan aw kaahinan fa sadaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad ku dem ci ab seetkat mu seetal la sa avenir wax la nga gëm ko weddi nga alquran ndax sunu borom nee na moom moo rek moo xam kumpa su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax xam ne yooyu ay nattu la léegi nag yéeféer yi bokk na problème bi leen gënoon a jaaxal nit ñi dee nekk poussière ñooñu nan la ñuy mën a dekkeewaate sunu borom yàlla mu ne gis ngeen dekkal samay jaam yomb na ci man ne xefa xippi innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun yàlla lu mu bëgg danaan ko amal mu am te yàlla moo am kattan ci lépp mbir ah yàlla yaa am kattan ci bépp mbir lan muy preuve bi preuve bi mooy da ngeen weddi ne mën naa leen génn ci biir suuf yéen fu ngeen jóge yéen ñëpp yéen a ngi génn seen biiru yaay yi moo tax doomu aadama bu doon musul gis jigéen bu ëmb wasin dana mën a nangu ne am ndox su ñàkk solo man na dugg ci ab béréb juróom-ñeenti weer doom génn fa di dund ndax doomu aadama bu ko musul woon a gis dana mën a gëm loolu waaye tey gis nañu ko yàlla ni leen génne seen biiru yaay yi ndax amul kàttan génne leen ci biir suuf ëllëg kay innahu ala kulli shay'in qadir borom bi dellu ci it ne maa leen génn seen biiru yaay yi ba ngeen di génn day xamu leen woon dara mi ngi noonu xamu leen woon dara man yàlla ma may leen ngeen di dégg ca mbokk dégg la doomu aadama yi jëkk a def xatta ci biiru yaayam dala commencé dégg mais du mën a ràññee li muy dégg su demee nag ba judd yàlla may ko dégg muy mën a xam bu ñu la demoon nga laaj ci en scientifique yi doomu aadama lay tax mu mën a dégg kenn mënu la wax nu mu demee ak nu mu compliqué gannaaw ba may leen ngeen di mën a gis doomu aadama la yàlla dajale ci bëtam ba mu mën a gis nam compliqué kenn mënu la ko wax am na benn livre buy wax ci islam ak science ña ngi cay wax ne Darwin kilifa ak yéefir yi ne yàlla amut daana wax benn taalibeem ne su ma xalaatee ci bët damay am ay frisson ñoom gëmuñu yàlla mais bu xalaatee bët ni mu compliqué comme ñoom lépp hasard la nuñ koy mën a gëmee da leen di jaaxal ala kulli xaal suñu borom mu ne maa leen may ngeen di gis moo gaa yi xéewal googu ndax den ci sant yàlla mooy xéewalu dégg lu yomb la ci yow da ngaa judd rek di dégg waaye wallahi boo daje woon ak ku mus a dégg da ngay xam ne adduna ak li ci biiram buñ ko ko joxoon te ñu ne ko ñu jox la ngay dégg danaan nañ ma bàyyi may dégg am déet mas naa leen nettali fi ay yoon Stevie Wonder foogoon naa faatu na sax temps yi laa déggee fi di wax ay mbiram benn koo xam ne sii woon na ci way adduna bépp xam ko waaye silmaxa la milliardaire la moom daf mu ne su ma mënoon a joxe suma milliards yépp xippi xool adduna ni mu mel rek jaral na ma ko gis ngeen même buy gumbawaat sax mu xoolal ñi la add ñi la ñi la ah adduna mel xoolal ngay dégg nit musoo gis nit ngay dégg asamaan mosoo koo gis dégg garab yi géej gi mosoo koo gis loolee nag yow yàlla defal la ko mi benn gannaaw ba am xel ca mooy li gën a màggaluy doomu aadama di teqale ko bàyyi ma yi nit ki bu ñëwoon fii tey rek def yaramu neen dañ naan amul xel du nit n'est-ce pas parce que amul xel dañ naan du nit amma silmaxa bi nit la tëx bi nit la mais boo xisee bu ñàkk xel jeex na loolu nag borom bi mu ne maa leen ko defal ngiri lan ngiree ngeen sant ma naam ñu sant doonte ne sant moo xew suñ jamonoy tey mooy sant benn question bi bu njëkk mooy kan lañu war a sant mbokk jullit yàlla rek la war a sant ñaareel bi mooy nu ñuy sant yàlla ni ñuy sant yàlla loole yàlla moo ko jàngal ay yonentam ñette ponk la bu ci manki sant ga yàqu na ponk bi jëkk bi nga gëm ne wama bikum min ni'matin fa min allah am déet lu ngeen am ci xéewal ci yàlla la jóge ngeen gëm loolu ca la ca jëkk mooy loolu ngay làmb daj te yàlla daa wax essentiel yi rek waaye ba mu ne nopp wax bët wax xol bu ko neexoon tudd loxo tànk ila axiri kenn xamul doomu aadama ñaata xéewal nekk ci moom lépp lu nekk ci xéewal ci yow ci yàlla la jóge benn ngi noonu ñaareel ba nga sant yàlla ci sa làmmiñ alhamdulillah mi ngi noonu heure bay sant nga sant yàlla alhamdulillah ñetteel bi mooy nag xéewal yàlla yàlla jox nga teg ko fa neex yàlla ca mooy i'malu ala daawuda shukra ñu jëf sant googu ca mooy jël xéewal fa neex yàlla lii mooy ñetti ponk yi nga xam ni moom la yàlla bëggoon ci ñun la'allakum tashkuruun bokk na ñii bokkaale seen boroom boroom bi ne waaw yéen yéen a ngi jaaxle di dem ci xërëm yi di sukko karaam xanaa gisu leen picc yi picc yi ñoom ñi ngi leen di romb di naaw ci kaw asamaan yi di plané ndax picc yooyu yaakaar nañu hubal wala laat wala uzza kan moo leen téye ci kaw asamaan yi loolee mbokk di benn question boo xam ne da ngay gis tey ñi nga xam ne ñuy scientifique yi boo demoon tey fu mel ne fële ci gannaaw ndar parc de Djoudj am na picc yi dañuy émigré jóge Europe di ñëw foofu ay bàgg lañ leen di takkal da ngay jàpp benn picc mi ngi jógee France kii mi ngi jógee Angleterre kaza wa kaza dañuy traverser océan Atlantique six mille kilomètres presque ca bokk na lu leen jaaxal mooy temps bi ñuy def foofu ay fan ñu nekk ci kaw jaww ji di naaw duñu lekk duñu naan duñu duñu nelaw kaza wa kaza looleen lan moo leen mën a téye foofu tontu boobu gaa yi mi ngi ci alxuraan maa yumsikuhunna illa illa allah jalla wa ala subhanahu wa taala doonte ne ñoom dem nañ ba gis ne pour orienté wu ah dañuy utiliser rayon jant bi ak magnétisme suuf bi loo xamee ni nii tey jii doomu aadama bi gën a xellu ci doomu aadama bi mënu ko defal boppam mais yàlla may ko picc mu koy def mu jóge point précis ca na doon fu mën a doon ci dëkk Italie la wala feneen ñëw direct wàcc yi ci juj buy nibbi it daal di jaaraat même destination bi loolee ci ay fan ñu nekk ko ci kaw jaww ji ma yumsikuhunna illa allah dañ naan la am na ci picc yoo xam ne bu ñuy départ dañ mat lu jege ay cinq cent grammes des fois bu ñuy teer si bu ñu matee ay deux cent grammes ca lay yem loolee ci kattanu yàlla jalla wa ala kon nit muy woñe ne yow negeen picc yi ñi ngi naaw ci jaww ji dox seen soxla te yaakaaruñu ku dul yàlla ma yow doomu aadama lu la tee nga doyloo yàlla sa borom kon mbokk laa ilaha illa allah sunu borom mu ne kaawtee fi ngi ñeeri xeet yi nga xam ne dañoo gëm yàlla na yàlla boole ñu ca ñoom
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون سنبرون سبحانه وتعالى مني والله جعل لكم من بيوتكم سكنا yàlla day def na ñeel leen ci seen kër yi daluwaay wa jaala lakum min juluudil an'aami buyuuta defal leen ca la nga xamee ni nii mooy deru jur gi la nga xamee ni mooy ay néeg tastaxifuunaha yoo xam ne dana woyof ci yéen yowma za'nikum bis ba ngeen di jóg di tukki wa yowma iqaamatikum ak bis ba ngeen di toog di dal wa min aswaafiha defal na leen ca leen ngay jóge ca xar ya wa awbaariha ak karaw yay jóge ca giléem ya wa ashaariha ak karaw yay jóge ca bëy ya asaasan wa mataan ila xiin ay njëfenukaay ak lu ngeen di xéewloo ba ci jëmmi jamono wallahu jaala lakum mimma xalaqa zilala seen borom yàlla def na ñeel leen ca la mu bind ay ker wa jaala lakum min aljibaali aknaana defal leen ca biir montagne ay laquwaay muy ay xunti wa jaala lakum sarabila taqiikum alxar mu defal leen naka noo nit ay yére yu leen di fegal tàngaay wa sarabila taqiikum ba'sakum ak yére yu leen di fegal seen ay ca mooy gilet ya wala fi di ko tudde ay mbubba koŋ kazalika yutimmu ni'amatahu alaykum nii rek la yàlla di matale xéewalam ci yéen la'allakum tuslimuun ngir ngeen jébbalul seen boroom fa in tawallaw su dee nag wax nga lii ñu wane gannaaw fa innama alayka albalaagul mubin yow yonent yàlla dara wóoru la lu dul jottali bu leer rek yaarifuuna nicmatallah ñoom day xam nañ xéewalug yàlla summa yunkiruunaha waaye gannaaw ba ñu fakk ko fàtte fàtte lu ko wa aksaruhum alkaafiruun la ëpp ci ñoom day ay yéeféer lañu te yéeféer lu kenn ku dul kuy suul njëkk mi ngi noonu mbokk sunu boroom dafa bëgg ñu jébbalul ko jaamu ko moom rek jaamu googu mbokk dañ ne dafay tege ci ñaari mbir mooy alxubbu wa taazim mooy bëgg yàlla subhanahu wa taala ak màggal yàlla subhanahu wa taala bëgg gi ngay bëgg yàlla moo lay xëcc jëm ci moom ngay def ay ndigalam ngir am yërmaande mekki ngëneelam màggal gi ngay màggal yàlla mooy dox sa digganteeg ay tereem loolu nag ngir yàlla bëgg ñu bëgg ko bëggeel gu tiim keneen ku dul moom moo tax saar yu bam dooree ba tey mi ngi ñuy wax ay xéewalam bokk na ci xéewal googu mu ne maa leen may néeg yu ngeen di dale su ko defee xale bi xamul dana na ah man kër gi day saa bàyyi ko tabax na am mbokk ba ñuy tabax kër gi suuf ba ko tabax ndax sa bàyyi ko defar feer bañ ko tabaxee ndax sa bàyyi ko defar béton ba ndax sa bàyyi ko créé ndox moom àndal ndax sa bàyyi ko créé marbre yañ defare karo ya kaza wa kaza ndax sa bàyyi ko créé moo dine ne da ngay gis allahu xaaliqu kulli shay'in am déet yàlla mooy ki bind lépp kon yàlla moo ñu may wërsëgal ñu xelal ñu gaynde yaa ngi fi ëpp ñu doole fuuf ñay yi gën ñoo rëy fuuf kéwél yi dàq ñoo daw fuuf waaye gisu leen ñuy tabax ay immeuble yàlla moo ñu xelal kàttan nañ ñu may ñu ay pexe wërsëgal ñu ay matière première bañ mën cee tabax ay kër ñu am ci ñun lu sun maam yi amul woon mi ngi noonu ci li ñu yàlla may suñu kër yi tey daanaka ñun ñépp ay buur lañu gis ngeen su ko defee borom bi it gannaaw loolu mu ne ci la nga xam ne mooy deru jur gi waxoon nañ ca njëlbeenu saar ba ne ca ngeen ciy lekk di ci naan di ci xotti yére yu ngeen di sol mu fegal leen sedd bi ci deru jur gi tey it sunu borom mu ne moo ne day yàpp wa ngeen lekk ak der bi tamit man ngeen koo jël defar ci ay néeg mooy tant xayma yi nga xam ne naar yi dañ koy defar ba léegi toore gi yooyu dañ koy defar muy néeg yoo xam ne bu ñu ñëwee samp ko bu ñuy tukki dañuy lem rek suuf seen giléem buñ demee ba fu leen neex ñu jël daal di tàllalaat doonte ne yàlla may na doomu aadama tey mu am yeneen pexe ay tente yoo xam ne nii dañ ko defaree ci yeneen tey boo demoon am na sax ay tente inflammable yéen ñuy defar fële ci Muna nga xam ne ku ko taal sax du tàkk gannaaw ba fa lakk gi amee en 1997 loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ci ne xéewal la ci xéewalu yàlla yi borom bi it mu ne xool leen leen biy jóge ci xar yi karaw gi jóge ci giléem yi ak liy jóge ci bëy yi da ngeen koy ràbb ba man cee am ay meuble ay laytaay ay jëfindukaay lu ngeen di mën a xéewloo ba ci jëmmi jamono xoolal mbokk jur gaa ngi noonu ratt nga meew ba naan soxla nga ren di lekk yàpp wa der baa nga ni defar nga ci néeg karaw gaa nga ne defar nga ci la nga xam ne mooy ay laytaay ay basang ak ay lu ngeen di sangoo lii lépp borom bi teg ci ne moo leen defal ci li mu bind ay ker gaa yi ker xéewalugu yàlla la sunu borom ak puissance bi mu jox jant bi nga mën ne dem ci àll fekk benn garab car yi tàllalu nga ñëw fekk ker gi féex loolu mbokk yàlla moo ko bind muy xéewal su neexoon yàlla kattan googu mënul téye kattanu jant bi yàlla leen bindal ci lim bind ay ker defal leen ci montagne yi ay xunti xoolal kawte fi yàlla montagne bu dëgër boo xamee ne nii kenn xamul nu muy réyee borom bi ubbi ci ay néeg yonent bi alayhi salaam fan la ko jibril fekkoon te xaaru xira muy xunti bu nekk ci benn montagne moo xira ba muy jógee màkk di daw di làqu ma nga nekkoon xaaru sawru benn xunti bu nekkoon ci biir montagne naka noonu it tukkikat yi dañ daan dem ba mujj ñu gis benn montagne benn néeg nekk ca ñu ñëw daal di dal daal di fay campé def fa lu leen neex doog a jàll mu fegal leen taw bi fegal leen sedd bi fegal leen lu bare bare bari borom boobu subhanahu wa taala it mu ne maa leen may la nga xam ne mooy sarabil ñu ko wax sirbal muy yére yu ñuy sol yoo xam ne daña leen fegal tàngaay na am ndax waxoon na la ñuy fegal sedd ca bopp saar ba lakum fiha dif'un dana leen ñeel lu ngeen lu leen di tàngal yére yi dana leen fegal tàngaay mi ngi noonu gannaaw ba itamit ca loolu mooy chaleur bu mag bi jóge ci jant bi xam nañ ne boo solul yére rayon yooyu baaxul loolu kon moo la koy fegal rawatina yére yu weex nga xam ne day rejeté loolee su ko defee kon gannaaw ba it naa leen xelal ngeen mën a am yére yoo xam ni dana tax ba buñ leen dóoree du leen gaañ te loolu ko ko yàlla jëkk a xamal mooy daawuda alayhi salaam daawuda moo jëkk a defar ay gilet sun borom na ko qaddir fi sard defar ko bu baax yéemal la ko ba bunt bu tooy du ubbeeku loole yonent bi alayhi salaam keroog uhud ñaari mbubb la ci tegale sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem ca combat ba mi ngi noonu tamit tey yàlla defal ñu doomu aadama ay casque yoo xam ni buñ la dóoree xeer du la gaañ ay gilet yoo xam ni mën nga dem ba bal fetal sax buñ la ko dóoree du dugg loolu lépp suñu borom mu ne xéewal la guma leen defal ngir mu fegal leen la nga xam ne mooy seen lor lii yépp xéewal la gumay mottali ci yéen laallakum tuslimoon ngiree ngeen jébbalu jëm ci yàlla boo leen dee sant bu leen sant te ku dul yàlla bu ngeen dee yaakaar bu leen yaakaar ci ku dul yàlla su ngeen dee ragal bu leen ragal ci ku dul yàlla laallakum tuslimoon borom bi nag subhanahu wa taala ni lii boo ko leeralee teewul ñu dëdd di bokkaale yow li la waroon rek mooy nga jottali jottali bu biir waaye xam leen ne ñooñu di bokkaale day xam nañ ne lépp lu ñor ci xéewal ah ci yàlla la jógee bu la neexee nag taxaw di bàkku sëñ diw la ma defal sëñ diw la ma defal sëñ diw la ma defal waaye wallahi ku ci toog intérieurement dana xam ne xéewal yam yor jógewul ci kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala doonte ne ñoom rek ñoo koy jéem a fàtte fàttelu nekk ay kuffaar mi ngi noonu ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
sun boroom subhanahu wa taala mu ne wa yawma nabaasu min kulli ummatin shahida fàttalikul bis ba ñuy génn ci bépp xeet aji seede summa laa yuzanu lilladina kafaru gannaaw ba kenn du jox ndigal yéefér ya wala hum yustaataboon ca kenn du laaj ci ñoom ngir ñu jéggalu joxe ngànt wa ida raa alladina zalamu al azab heure boo xamee ni nii tooñkat yi gis nañ mbugal ma fala yuxaffafu anhum wala hum yunzaruun kenn du woyefal ñel leen te kenn du leen xaare wa ida raa alladina ashraku shurakaahum heure boo xamee ne bokkaalekat yi gis nañu ñañu doon bokkaaleel qaalu rabbana haulaai shurakauna alladina kunna nad'u min dunik ñu ne ay yàlla ma nga neekat ña nga xam ne suñuy bokkaale yañ doon woo gannaaw yow fa alqaw ilayhim alqawlu ñañu doon bokkaale sànn ci ñoom kaddu ga innakum la kaasibuun ne leen yéen yéen a mën a fen wa alqaw ila allah yowma idin assalam keroog la ñuy sànni jëm ci yàlla ak jébbalu ak jàmmoo wa dalla anhum maa kaanu yaftaruun mu sànku ci ñoom la ñu nekkoon di ko duural mbokk julit sunu borom yàlla temps limité wu ko ni mu xamee woon li fi xew démb noonu la xamee li xew tey lay xew yowmal qiyaama it noonu la ko xamee te nee na maa yubaddalul qawlu ladayya amul benn kàddu gum ñuy wax ci téeréem bi lu dul bu ñu demee daañ ko mës a dund bu ñu teree ci kanamam borom bi nee na amul benn xeet lu dul yónni na fa yonent jàng nañ ko ci bopp saar bi wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taagut jàng nañ ko ci bopp saar bi ñu nekk amul benn xeet lu dul yónni woon nañ ci yonent na ko jaamu leen yàlla ca moytu leneen lu ñu jaamu ci du yàlla léegi nag yowmal qiyaama yàlla dana woo xeet bi woo yonent boobu muy aji seede ndax jottali woon nga la ma la waxoon mu ne ah kay mu ne woo xeet bi nag léegi lu ngeen tontu yi nit su ko defee bu boobaa borom bi subhanahu wa taala nee na ngant bu yéeféer bëgg a joxe kenn du ko ko jox da ngay gis ñaan ay sunu borom ñun day bàyyi ñu ñu dellu fa na amal xayra li zikku naa na amal bàyyi ñu ñu dellu jëf leneen luñ dul jëf ay rabbi axirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi rusul ay yàlla bàyyi ñu ñu dundaat tuuti rek daañu ñu sa woote topp yonent yi wala hum yasta'tabun amul benn ngant bu ñuy joxe bañ nangul leen ko léegi nag sunu borom nee na ñi nga xam ne dañoo tooñoon alazina zalamu doonte ne njaalookat bi tooñ na naan ko du sàngara bi tooñ na waaye par rapport ak bokkaalekat bi kookee kenn du ko tuddati zulm bay tax doomu aadama sax ci sawara yàlla araamal ko ci aljanna du njaaloo du naan sàngara du rey nit waaye mooy lan mooy bokkaale ak sa borom jalla waala loolu tax sunu borom mu ne tooñkat yi buñ demee ba gis nañ doon bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala dañ naan ah yàlla ña nga ne man kat isa laa doon jaamu man naam ko ne ne Muhammad laa doon jaamu kenn man Cheikh Fulaan kenn Cheikh Fulaan yàlla ñun ñee lañ doon woo suñu masaan jàq ñoom la ñuy woo. gars yi maa ngi leen di laaj tey li ngeen xam ci réew mi ngeen nekk muy Sénégal li ëpp ci nit ñi bu musiba dalee yaa Cheikh nangam ngeen dégg am ya Allah mooy yaa Cheikh mu ëpp wallahi wallahi loo xam ne nii yàlla bu ko kenn ci ñun fekkee waaye li ma wóor benn. camion bu ñu ne daje nag Ndiaga Ndiaye yaa vingt cinq mort cay ku mënoon a enregistré la nga xamee ne moom la mbooloo mu mujj a wax ñu ngi noonu yaa cheikh de yaa cheikh yaa cheikh yàlla ñun ñii lañ doon woo gannaaw yow loole ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee julli tàmmalal sa làmmiñ subhanallah tàmmalal sa làmmiñ ya allah booy woo wool yàlla amul kenn ku la mën a xettali ku dul yàlla mi ngi noonu sama mbokk bi inspecteur Samb mi ngi may nettali benn waaye bu ñu wax ma war de yéen ñëpp xam ngeen ko nekkoon ci wàllu football bi dañoo dem benn place ba ci digg autoroute bi oto bi am problème de culbuté waa ji toogal naan yaa Cheikh diw yaa Cheikh diw mu ne ko waaye jàppal bu dëgër laa wax Cheikh diw mu ne lu ñu fi dara gis ngeen loolu loolu mooy mbir bi ah mi ngi noonu loolu mbokk mooy mbir bi su ko defee doomu aadama yi lu ëpp tey wallahi la ñaanatuñu yàlla waaye keneen ku dul yàlla la ñuy ñaan bu xett li ñëwee keneen ku dul yàlla lañuy la ñuy sant benn borom oto jële na ma ñu jóge voyage di ñëw mu dem ba ci yoon bi carburant daal di manqué bi ñuy demee boobu ñu ngi doon daw ay boori quatre heures du matin ñoo dem ba boori Tivaouane daja faak benn camion waa ji jox ko essence mu yéeg rek ah sëñ diw amul moroom ma ne ko waaye sëñ bi te nga sant yàlla mi ñu xettali mais dafa mer mer ba baa ñu yëg si waxul ma wax gis ngeen mi ngi noonu loolu mbokk mooy li am sama benn doom nettali na ma ña nga nekk Italie benn waaye bu ñu àndal war a voyager nee na ñu dem la ko waaye ndax seet nga essence seet nga essence bi non nañ dem sëñ diw amul morom ah nee na ñu dem a dem ba ci digg àll bi ñu xool essence bi ne pëng ah léegi ñu taxaw xool xool mu jóg hoo hoo moom nag bu xool moo trop na ko non comme léegi il est trois heures du matin au Sénégal nañ xaar suñ diw day na la bu yow rek oto bi dana départ na koy bay ban li ngay wax waay gis ngeen su ko defee kon mbokk loolu c'est des échantillons yoo xam ne li ñu leen di xamal mooy mag ñi ndaw ñi problème bu amee keneen la ñuy woo ko dul yàlla xéewal bu amee keneen la ñuy sant ko dul yàlla loolu nag sunu boroom yàlla nee na buñ gisee seen bokkaalekat yi li ñuy wax allahuma rabbana haulaay shurakauna yàlla ñun ñee lañ doon woo gannaaw yow su ko defee ña ñu doon woo ñoom lan la yàlla wax istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u mi ngi mel ne rek tey jii mbokk benn policier bu war a garde benn waay sàcc ba pare ñu jàpp ko mu ne policier sàngam moom a ko sant lan lay wax day denc moom ba mat sëkk parce que ñooñu ñuy woo benn bu doon nit ñu baax la ñun la leen doon seen warugar mooy ñu tere nit ñi shirk tey nag yow nga ne man yàlla kee laa doon woo moo tax dañ leen delloo seen kàddu yéen a mën a kàcc su ko defee ñu dellu ci yàlla nag jébbalu ci yàlla ay yàlla xam nañu yaay kenn yàlla nangul nañ la yàlla kaza wa kaza sunu borom mu ne foofee lay réere lépp loo xam ne dañ ko doon dooral su ko defee mbokk julit nañ góorgóorlu suñu bopp góorgóorlu suñu njaboot góorgóorlu ci ku ñu mën a waxal nañu xam ne la ñu war a gën a moytuloo nit ñi moom mooy bokkaale yal na yàlla musal ñu ci bokkaale ma zahara ma zahara minha wa ma batan mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain dafa am ñaari laaj benn laaj bi mooy dafa gis ñuy jaay ay picc am ñu koy jënd di sànni ala kulli xaal mbokk julit la ëpp ca ñuy def loolu lañu cay jublu mooy affaireu njabar su ko defee loolu kenn wuru koo nekk di ko encouragé ndax bu doon teneen rek da ngay xam ne boo ma jëndul picc yi libéré leen mu yem foofee loolu di problème waaye boo jëndee picc yi libéré leen danaan sama marché baax na day jëm jëndaat yeneen picc su ko defee ab tayratu gis nañ ne arab moom la tudd sax gaafal ñu bari ci la ñuy seete au lieu ñu dem ci buxaaba yi dañuy dem ci picc yooyu daa dina yàlla damaa bëgg a tukki nangam nangam sabata njaay bàyyi picc bi su jaaree ndeyjoor ñu ne akoon dana baax su jaaree càmmoñ ñu ne kon du baax yooyu kon moom la ñuy def jurit war na moytu yi demee noonu beneen mbir bi muy wax mooy lan mooy taxawaayu jullit ci manifestation yi ala kulli xaal mbokk jullit nañu xam ne doomu aadama bi am na droit bu gisee loo xam ne da ko naqari mu manifeste ko su jàppee ne loolu aqam la te mën na cee jot léegi mu des leen benn mooy sunu borom nu ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci alkaange li ngay dégg ci jeunes yi ne sama bakkan dana ko fekkee du ko fekkee waaye kaza wa kaza défendre sun constitution bi jarul joxe sa bakkan dañ xam ne loolu bu baax boo doon tene ne dañoo amoon parti l'islam bu jóg di xeex dañoo bëgg a samp sharia ci réew mi am ñu taxaw ne sharia du samp ci réew mi su boobaa day ku xeex ba dee ca dee nga fi sabilillah mais constitution boo xamee ne nii ay nit ñu jël alxuraan ak sunna sànni fële dajale seen xalaat bopp tëral na lii mooy constitution nga ne pour défendre la constitution jaral na ma sama bakkan loolee mbokk jullit bul bokk ci loolu ñaare bi l'autre partie ña nga xam ne ñoo taxaw yor seeni gànnaay jàkkaarloog ay nit di leen dóor ba tey ñu naan fukk ak nangam dee na ci loolu it défendre constitution laïque bu mu la ko jaral défendre nguur bu mu la ko jaral bu su ne ñu koy fàttali nit ñi suñu waxtaanu timis yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne la zawaalu dunya wa ma fiha ahwanu inda allahi min qatli imri'in mu'min adduna yépp yàqu woon ñii woote di ci adduna la ñuy woote sunu borom mu ne adduna yépp wala yonent bi ne na sunu borom yàlla adduna yépp yàqu woon moo gën a woyof ci moom benn bakkan tuuru loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee daal ku nekk na delloo si xelam yonent bi alayhi salaam daana ñu wax ne soo gisee lu bon dindi ko ak sa loxo su dee mënoo ko wax ca mu deñ su dee mënoo ko nang ci naqarlu sa xol waaye bépp mouvement boo xam ne buñ ko yëkkatee ay bakkan tuuru ca ca loolee du jihad fi sabilillah jullit warul dugg ci mouvement bu tol noonu keneen ku mën a doone dañ laa tuddee alkaati wala gendarme wala lu mu mën a doon ngallaawaay ab salaire buñ lay fay warul la jaral mukk ngay jël bali fetal di dóoru la nga xamee ne nii mooy say say say doom ki ma ci mujj a dégg ñu rey ko fii ci tëngéej xale bu ndaw la bu am 11 ans di def CM1 di jàng alquran door ko balu fetal kooku yoonam nekku ci ñëpp dégg ngeen ko ci rajo bi parce que yow mii dóor xamoo fu muy dal te loolu la yonente bi alayhi salaam waxoon balaa addunaa tukki da ngay gis ñuy rey xamuñu lu tax ñu rey policier ba dóor xale boobu bal ku ko laajoon wala tax nga dóor xale bu bal xamu ko da ngay gis ku ñu rey du xam lu tax ñu rey ko fitna daal buy ñëw nañu góor góorlu ku nekk ci ñun jéem a ñaan yàlla yàlla fay ko mbokk fitna arrangé wul kenn gis ngeen Égypte gële ak coono ya fa am buñ la ko waxoon dem nañ ba courant mënatuñ ko am ndox mënatuñ ko am gaz mënatuñ ko am baa doole yu sonn fa sonn boo xam ne mara day taali patron yi ils ont leur réserve ñoo seen njaboot mën nañ toog un an bu ñu liggéeyul dara duñ dul wàññi waaye gis ngeen manifestation tey la lan la waa Sandaga jógee waa Sandaga ñuy jaay ci taabal dañoo taxaw ne kenn di fi manifester ndax ñun dañuy xëy pour mën a am lu ñu dundal suñu njaboot kon yéen bu nga ñëwee fii di manifester taal suñu taabal dañuy perte loolee kon baa doola li koy jig rek mooy jàmm doonte ne kilifa it jàmm ko jig waaye nañ ñaan yàlla ñun ñépp ay wi yàlla fay ko delloowaat sénégalais yi ñu jàppante bëggante te yàlla tax te xam ne bu doon jihaat boo xamee ne nii dañ koo war a def mooy bis buñ taxawee ne bis nekki tey dañoo war a tëral téere bi yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolee bu dee borom xam-xam yi dëppoo nañu ci woon ne loolee lu jot la bañ koy def ndaw yépp dañ ca war a génn waaye nañu xam ne nag borom xam-xam yi waxaguñ ci loolu dara da ngeen bàyyi xel ci loolu su ko defee léeg-léeg nga gisit ay ndaw yoo xam ne seen Hamas day tax ci yeneen réew ñu xëy xëy dem di taal ay bombe à gauche à droite ndax dañu war a àttewoo sharia loolee mbokk nañu xam ne safaanoo na ak sunna loolu daal kon la ñuy digal sunu bopp di ko digal ku nekk ku nekk fa nga toll deel ñaan yàlla xamuñu de waaye yàlla xam ne lu muy fay ay wi yàlla na ko yàlla fay ci jàmm i ngi noonu incha allah bismillah dañuy def anniversaire ku yónnee ku ñu yónnee dix message ñu yónnee la cinq mille francs loolee bu dee ne dañ la koy may kookay seen mbir la ñoo moom seen réseau ñoom ñoo cay may lu leen neex mais bu dee ne am nga loo ci mën a gagné wala am loo ci mën a perte su boobaa baaxutut nañu xam ne mbokk carte même bu doon un franc baaxul donte ne loolu dana ma jaaxal ñu ne ñu boo defee dix message yónnee leen ko rek ñu yónnee la may la cinq mille francs naam bu dee dañ la koy may loolu seen mbir la ñu ngi mel ni rek li ñuy jëndee di jaay carte bi cinq mille francs nga am cinq mille francs crédit ñu ne bisub tey bi nag moom ku jënd daañu la ko defal dix mille loolu moom dañ la koo may amul lenn loo cee perte amaa lii bon daal mooy jeu yi ñuy def ci portable yi envoyé le nangam nangam dana la côté deux cent francs mën nga gañe kër gañe oto gañe nangam gañe nangam loolee même bu doon dix francs dagganul jullit def ci xaalisam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah benn mbokk ci waa internet yi mu ne lan la ko lislaam mën a laaye biir ci jàng bi muy jàng ndax dafay jaxasoo ki góor loolee bokk na li mu war a gëm benn mooy ab daruura moo ko yóbbu ci loolu mooy mu am yéene bu sell ne bëgg naa bokk ëllëg ci ndaw ñi changer sama réew la muy jàng doon luy jëriñ ëllëg waaye mu xam ne la muy bokk yoon boobu muy jaar nekkul yoon bu dagan tubaab yi bañ ñuy nax di ñu dugal ci école dañoo beroon fee école góor ber fee école jigéen gis ngeen Ahmed Fall ca Ndar gis ngeen Kennedy ci Dakar ila axiri loolu lañ defoon di nax nit ñi nax nit ñi bañ demee ba nit ñëpp riir ci école bi ca lañ leen doog a jaxase waaye mbokk jaxasoo école góor ak jigéen nañ xam ne loolu wurul woon a nekk xale yu jigéen yoo xam ne ñëpp mat nañoo sëy xale yu góor yoo xam ne ñëpp mën nañoo sëy di xëyee ko gontu képp ku ci nekk na xam ne mi ngi ci lor na moytu kemtalal kattanam di ñaan yàlla ne lii de ab passage la ngir ëllëg bëgg naa nekk benn médecin ëllëg bëgg naa nekk benn enseignante ëllëg bëgg naa nangam pour am njëriñ ci sama réew parce que it loolu rek la ñu mën a def sinon buñ ñee xale yu jigéen yëpp nañ boycotté suñu école yi ëllëg si biir fu ñuy jëlee ay gynécologue yu jigéen fu ñuy jëlee ay médecins yu jigéen fu ñuy jëlee ay nangam nangam amma bu dee yenn njàng yoo xam ne nag góor moo ko yeeyoo loolee mbokk la gën xale bu jigéen bu ca nekk na jéem a changé jéem a uti njàngin moo xam ne jigéen mën na ca évoluer te l'islam du ko ca yedd loole day bu dee ne yéeneen sell na yàlla jalla wa ala mën na ko baal lor boobu muy traversé ba baa mu yegg ci diplôme am wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw kon waaw kon ñu mujj ci mbokk bi incha allah waaw dagan na ci nit dem beneen mbokk julitam defal ko salaatul istixaara tànnloo ko loole mbokk julit yonent bi alayhi salaam moo jàngale istixaara da ko doon jàngal sahaaba yi ni mu doon jàngale nit ñi saara alquran istixaara mooy lan ñaan yàlla ak wékku ci yàlla keneen mënu laa wékkul ci yàlla yow yaa mën a wékkul sa bopp ci yàlla su ko defee kon istixaara boobu da nga koy jàng ci arab mënoo ko jàng ko ci pulaar jàng ko ci français mooy lan yàlla maa ngi lay tànnloo sa xam-xam bi di la dogalloo sa kàttan gi di la ñaan ci say ngëneel yow rek yaa xam man xawma yow yaa man man mënuma fàccaam ñi ma bëgg a takk su dee baax na ci sama diine ak sama àdduna yàlla nag ma ko yombalal barkeelal ma ko su dee ne yàlla baaxul ci sama diine ak sama àdduna yàlla nag ma ko soril indil ma ku ko gën ca barkeelal ma ko lii kay ku ne war na ko man su ko defee loolu nga def nag wékku sa boroom loolee ku ne da ko war a jàng kenn du la ko tànnal kenn kenn kenn du la mën a wékkul su ko defee kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla mooy ki xam yàlla mooy ki man mooy bërëmi ngëneelam yàlla nañu tànnal lépp luy ngëneelu àdduna ak alaxira dàqal ñu lépp luy loru àdduna ak alaxira gërëm loo ñu ko te barkeelal ñu ko subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk